ci wàllu social ak ci wàllu économie muy jaamu yàlla gu mag a mag gu lislaam teel a sóor depuis jamonoy sahaaba yi ba nga xam ne mën nga wax ne fu lislaam egg pratique waqf moo ko fa yóbbu mu nekk nag jaamu yàlla nekk sunna gu ñu bëggoon a fàtte waaye monde islamique gis importance bi mu am mu delloosiwaat ko wala mu jëm koo delloosiwaat même bu fekkee lu cosaanu la ci dëkk yëpp même fii ci Sénégal lu fi yàgg la këru diine yëpp ay aw awqaaf lañ jàkk yëpp ay aw awqaaf lañ mboolem béréb yi nga xam ne daanaka dañoo am relation ak l'islam moo xam fu ñuy jaamoo yàlla wala fu ñuy jàngee diine ay awqaaf lañ kon lu fi yàgg la waaye nag jamono dafa àgg foo xam ne lépp lu ñuy pratiquer te boo bëggee mu efficace da nga koy formaliser loolu nag mooy li nga xam ne moom la état bi dolli muy lu am solo mooy ñu formaliser mbiru waqf fii ci Sénégal tàmbalee ko ci wote ab loi 2015 euh, mu jëntale ko 2018 mu taxawal benn institution bu tudd euh, haute autorité di waqf ngir ñu jàppale jullit yi ñu mën a pratiquer waqf ci façon bu gën a am sécurité te mooy boo ko inscrire ci euh, notaire bi notaire bi jël inscription boobu dénk ko fu wala dégg ko haute autorité waqf mu ñëw topp la wax fi ba xam ni nga ko bëggee woon mi ngi deme noonu wala déet lool lu am am solo la loo lu luy assuré waqf bi la luy tax nit ñi sawar cee dugal seen àll ci la bokk. loolu lañ gis ne imaam yi mënuñ cee des gannaaw ndax ñoom ñooy ñi ciy njëkk a bénéficié wu ndax xam ngeen ne mbiru imaam yi lu xaw a compliqué la ndax imaam fii ci Sénégal kenn du ko fay ay bénévolat lañ. jërëjëf ñu ngi sant suñu borom mi ñu boole jotaay bi. Euh, kuréel bu mag bi nga xam ne son excellence président de la République moo ko initié euh, te mu néew ci réew Afrique bi mu am te jàpp naa ne balaa yàgg nañ ko dañ ko toppandoo ci Sénégal mooy loo xam ne comme ni ko Oustaz waxee léegi ci biir lu yàlla wane la ni dimbalante doon boo xam ci diggante jullit dina bokk ak asaka asaka dafa am ni ñu koy war a jox yàlla tudd na mais wax fu mooy taxawal ay ay bërëb yoo xam ne wala ay jumtukaay yoo xam ne dina génne koom koom ba di delluwaat ci askan ba di delluwaat ca ka ko bëgg a jox wala ka wax naa léegi ci biir saal bi nii Mawlana Cheikh Mouhamadul Moutala Mbacké xam nga taxawaloon na fi Al Azhar transport def ko wax li ci doon génne yëpp moo doon renforcer école yi di dimbali école yi nga xam ne mënuñoo fay seen i jàngalekat di dimbali aussi néew ju doole yi di la yeneen projet lu mel ni ay boulangerie lu mel ni ay ay station essence ak société transport wax naa léegi ci biir saal bi nii man ba ma demee Rwanda dama fëgg si lu ma yéem ndax réew la moo xam ne minorité musulmane maanaam ña fa dul jullit ñoo ëpp ñuy jullit mais dama fa dem visite dem fa congrès gis jullit di am doole lool am fa rajo am télévision am ay société mais bi ma leen laajee dañ ma bi ñu président bi joxee suuf ñu tabax fa jumaa li war jumaa ji yëpp dañ ko def ay magasin luye ko dafa jaay xalaal lay génne foofu mooy entretenir jumaa ji mooy dimbali imam bi mooy dimbali néew ju doole yi waaye mooy jël entre mooy mooy mooy financer yeneen projet loolu exemple la ndax foo ci dem na fa fekk espace boo xam ne mën naa ëmb loolu te la koy yombal mooy ngeen fexe ba la fay génne di delluwaat ci jumaa ji ak ñooñ jumaa ji ak ñu ko yittewoo kon wax fu am solo la ñuy aussi remercier di féliciter sëñ mi nga xam ni moom lañ ko dénk wax naa ko léegi ci biir nii président mën nañ ko dénk rek nga toog di xaar ay mission ay séminaire ay ndaje <laughs> ak di xaar ndigal yu jóge ci kaw waaye moom dañ ko ko dénk mu yaatal ko jël ay expert islamologue spécialiste économique arabisant teg leen ci ubbi ko ci kanamu institut islamique de Dakar ubbi ko ci ak man mii ubbi ko ak isbi tarixee bu Touba ubbi ko ak ligue des imams et prédicateurs islamiques ubbi ko ak cellule des awi ci yaani tarixa yëpp donc loolu ko bëgg résultat bëgg liggéey bëgg développer mbir boo koy def waqf nag dafa am solo lool ci imam dam ko doon waxtaan sax daaw sa ndar fu mel ni Màkka diñ fa def benn waqf bu am solo muy Zamzam Tower mooy immeuble bi nga xamante ne mooy immeuble bi ànd ak montar bi mhm. te nekk ca watt Kaaba ga kooku buuru Arabie Saoudite moo joxe suuf benn entreprise dajale xaalis ñi tabax immeuble def fa hôtel def fa ay commerce di ko loué te lépp lu muy jur ci alal mhm. mooy assurer entretien wu deux saintes mosquées yi maanaam ñaari jumaa yi nekk ca Makka ak ca Médine mu di lu am am solo di exemple am am solo du ma dugg ci détail docteur Ahmed Lamine Adj dina ci revenir waaye li ma bëgg a wax ci loolu mooy kon waqf amaan na njariñ suñuy jumaa ak suñuy jàkk ndax nag jàkk yeeg jumaa yi très souvent tabax bi buñ ko tuddee rek jullit yi dinañ jóg futteeku génnee xaalis tabax bi waaye jafe-jafe bi nag mooy ci entretien bi ci fonctionnement bi ci ndox bi ci courant bi te loolu lépp ñi ngi ko teg ci ndondu imaam muy jafe-jafe bu méttee metti bu ñu teg ci kaw imaam imaam Dame Ndiaye wax na ko léegi ni waruñ leen ci xeeb te man am na lu may wax souvent ci mbirum islaam dañoo war a bàyyi di méngale islaam di ko considérer comme yëfu miskin islaam lu taar la lu rafet la lu ñu war a taaral la lu ñu war a rafetal te autonomisation ak soutenabilité autonomisation ñun fi ñu yaakaaree ne moom la imaam mën a sukkandiku moo di waqf maanaam ni ñuy waxee jullit ñi nañuy tabax ay jàkk nañuy tabax ay jumaa noonu nañ lañ war a waxee nañu def waqf ndaxte nag wax soo ko defee def comme immeuble ba ca màkk fu placé foo mën a loué dina mën a jëriñ jàkk ji dina mën a jëriñ jumaa ji